ci ndigalal sëriñ xaadim sunu bunt ci waaye sunu bunt ci kan sëriñ Tuubaa xaadim rasul sunu bunt Cheikh Moustapha al Karim tey ñu koy xoole bati Cheikh Mouhamad sëriñ Mbàkke soxna loo sama ju baax ji sëriñ bi waa section bi teew nii tey tey ñi fi teew jiite section bi mooy alxaaji ma njéeme Jóob mi nit teew tey yàlla dogal na dana dégg kàddoom léegi waaye nun taalibe yi mooy sunu jëwriñ ndax mooy sunu mag waaye ci biir section bi nag ki nga xam ne si yàlla na moom la ñu tofal ci sëñ Xaadim mi président section mooy Serigne Modou Malick Guèye mi toog de sunu secrétaire général alhaji ma toog taxaw ci sa wet fu ñu toll wilaya des jeunes sëñ Xaadim Seck mi ko jiite mi ngi ci biir mbooloo mi ànd bi ñoo doon jàng léegi wilaya des femmes Adja Anta Ndiaye Dieng mi fi teewal soxna Mbène gay ma nga ne teew ànd ak jigéen ñëpp fa tabaarakalla ngir yàlla ak yontu bi jëmmi Serigne Touba ci di la siyaar tey nag ñu di la siyaar ci bokki ci turu bokk yi yëpp njaambur ku bëggoon a ñëw ci mënta ñëw ak ku ñëw ak ñëpp ñu ngi lay ñaanal yàlla nga yàgg fi ci wér di ñaan ci yàlla Serigne Xaadim sa doom ji yàlla fi yàgg ci wér ndax ni mu nekkee ak rafet na lool mooy dana lu teete ci taalibe dana lu gën a yaru dana lu ëpp taalube dana gën a teggi ca ndigal lu mu dégg lu nekk wërsëg ma ciy njëkk taxawaay ma ci njëkk njiita ma ciy njëkk nu doog na koo soññ nun taalube yi dana soññ ci ragal yàlla ak jaamu yàlla ca di ko wéetal cay matandi ko tere yàlla yi kon Mbàkke jërëjëf tey nag duñu sori waaye section baa ngi nii àndandoo di la siyaare ci bis bi nga xam si mooy bisub Serigne Touba Khadim Rasoul ca sa maam ju baax ji Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim jëlewoon ko njaareem andi ko ci kër dëkk bi ba tax kuy jëriñu ku nekk jëriñu ndax bis bu nekk dégg nañ ko waaye ko fanaan tey Touba sa yaram aramal na safara ci Cheikh Moustapha rek ko dégg kon fa tabaarakalla Serigne Touba rek ko waral duñu sori dañu jël kaddu gi jébbal ko Serigne ma njéeme Diop mi nga xam ne si tey mooy suñu jëwriñ fa tabaarakalla mu wax ci turu section Louga yëpp kon bàyyi njéem bisimilah. a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim barke borom bala nuy dem ci nuyoob sëriñ bi sant nañ santal gërëm la ndax lii nga nu defal mën nu koo ñàkk te mënuñu ko kon dana lu sant dana gërëm sëriñ du ñoo ngi leen nuyu balaay sa te di leen siyaare te nuy ñaan nga yàgg fi lool. ne ko Maodo wax sànq njàmbur a ngi nii ndax Louga ngi nii boo ne Louga nee nga njàmbur section bi yëpp ñu ngi teew kilifa goo fi dikkul ndaw ma nga fi toog. ñu ngi lay nuyu balaay sa di la siyaare di yëgal ne gannaawu sëriñ xaadim Mohamed ñoo ngi ci làqu ñaat na jaboot ju boot doomam muy déglu seen ndigal rek di nu digal nuy jëf lanu ca man comme ni ko mam ra wax mu jiitu nu ca mën nu ca fop ah bu nu gis bu bu bu nu leen gisul rek gis sëriñ xaadim moom day mel ne gis nañu leen yéen ñëpp te it nag noonu la nekkeek nun noonu la dëkkeek nun noonu la wéyeek nun mat na ko sëkk jëngeen ko faa jëmbët yàlla na seqi ba def ay car bayaatu yaatu loolu ba ñëpp xaj ci yàlla na yàlla guddal aw fanam balay sa jëmm la joo xam ne ndigal rek ko soxal ndigal rek ko soxal mu jóge fii bu yegsee rek yegsi ci nun comme ni ko Maodo waxe moom mën na ca fab yàlla na ko fi yàlla yàggal guddalaw fanam ñii fi Maodo tudd sànq nag ku mu tudd lit yaa ngi fi wala sa ndawal sa ndawa ngi fi ci kilifa yoo nekk ci section ba ñëpp ñu ngi leen nuyu di la siyaare di ñaan sa taxawaay yàgg lool te dëgër lool ba sa noo ngi lay siyaare sunu jëwriñ joojee nga xam ne mooy Alaaji Njaga Maxtaar te matoon ko sëg ngeen jëmbatoon ko fa mu nekk sunu kanam du nu lig du liggéeyal ci sayr baatin ba nag moo xam moog yàlla na mu ca doon defee noo la koy siyaare balay sa di ñaan di ñaan yàlla gàttandoo ko yërmande ci barkeb sëriñ Touba barkeb Cheikh Mamadou Moustapha barkeb sëriñ Mbacke Mouhamed. mbooloo mi sëriñ Abdourahmane nee na mi ngi leen di delloo ab nuyoo di ko jaarale ci jëwriñ yi ngeen àndal teew fii ci kanamam waaye itam di leen yóbbante ay cant ak i ngërëm. ca domom ju bax ja nga xamne fa ngeen bayiko te mu serene séré né serigne mbacké bimu fi daatan jóge gërëm na serigne khadim serigne Abdou Fatah gërëm ko waye mom mi fi tok jotaay bi it gërëm nako ndax néna lu ngeen xam ci mom rek ñom ñi ko di ay waajuram xam nañ ci lu kopp day nit ko xamne yalla nako sun borom lafal cat serigne bi néna waye dafa mësa jaar ci mbirum goné serigne khadim dafa mësa jaar waye yalla nako sun borom lafal nee bu ngeen topé ci gannaawam day té déglu ay ndigalam ah du ngeen jadd dé té it euh, du ngeen juum té yaakar na né loolu ci ngeen nek ndax ci loolu la leen xam nee mi ngi koy sant bu baax mi ngi koy gërëm di leen ko dollee dénk leen xamal né euh khadim kenn la ci mom kon nak euh, lu ngeen ko défal rek na ngeen xam ne mom moom mi ngeen ko défal sëriñ bi nee itam mi ngeen mi ngi leen di jaalé El Hadj Ndiaga Ndiaye di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu dolli ay leram e, te yirma dem ci kawam e, kenn la won goge gu mag ci njambur waye nak e, suñu borom mom kenn du ak mom kon nee mi ngi leen koy jaalé den yobante ci ak njabotam sëriñ bi mi ngi leen di dénkit ni ngeen def moy bolo gi ngeen boole seen bop ngeen gën ci sax ndax kat amuñu lenn lo xam ñom man nañ ko digle lu wessu nañ benno ndax serigne Cheikh Amadou Mbacke mi mu wuutu neena neena la doon ak dundam di ab yëngutoom di ak dalam modi di digal nit ñi ñu jaamu yalla way di len digal ñu nek ben di len digal ñu dimbulante daan wax ne ruuxu federation bi moy dimbulante moy solidarité roh gi te lolu ku xam euh, diine da nga xam lolu loolu diine la waaw ndax sun borom mo waxoon ne dee leen te dimbulante day doon farata kon ci ab julit kon bu fekkee ni sëñ bi da taxawal mbolo mi xamne amna ci ñu man amna ci ñu mënut amna ci ñu am amna ci ñu amut amna ci ñu am xel amna ci ñu ko amut amna ci ñu am xam-xam amna ci ñu ko amut waye suñ boole suñ bop ka ñak du yëg na ñak na ka ñak xam-xam du yëg na ñak na xam-xam ka ñak pexe du ñek du yëg na ñak na pexe ndax lepp ngi ci biir mbolo mi kon loolu motax sëriñ bi booloon kon neena na boole gim leen boole boole wu leen ngir jariñoo leen waye da leen boole ngir ngeen jarñante jarñante gi nak moy kenn ku nek lepp lu mu dégg ci mbok mbok mbokum talubem mu bokkal liggey bi mo xam bu dee banex la na ci and ak mom ndax day gëna day gëna neex rek waye bu dee naqar lay it ñëpp taxaw ci wetam ba mu woyef toy ci mom ndax nit kat bari waana lu muy nekk mu metti lool waye bu ci gisee ay mbokki talibem kenn ku nekk taxaw ci bu rafet lool lu metti metti day di kon loolu mo taxoon Serigne Cheikh sos daayira bi waye du leneen kon loolu it na ngeen ci sax bu baax baax nee mi ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di ñaan yalla ngeen yag ko fe fekk euh, di ñaan itam bis bi nga xamne mom la guddi gii ñu jëm la ci sëriñ Modou Moussa digge woon ba tax mu woote ko nee na loolu yàlla bu leen ci kenn ëppale te sëriñ Modou daa waxoon ne ku yend Touba tey fanaan fii ci guddi gi ba bët set nekk fi ni mu ni mu neexee eh, sunu borom bu bët setee set nga wecc bàkkaar ne liir buy dooru judd kon day mel ni bisu fóotu la ay yëri sax ku ko yor te fóotoo ko ab diir boo jegee nit ñu daw la rawatina nag eh, eh, doomu aadama ak rëcc rëccam loolu moo taxoon sëñ Modou wutal nu bis boo xam ne bu jotee ku fii te nekk fi ni mu ko bëggee bu bët setee mën ngaa mën waat na yow kat yaag liir buy door juddu yéen a yem ndax amutoo benn bakkaar kon sëriñ bi nee mi ngi leen di sant bu baax leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ko wuy seek farjëkki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate Moustapha